Monsieur ministre du Travail et des relation avec les institutions, honorable député maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp président balaa may commencer dama bëggoon saluer le rapport rapport bi nga xamante ni sànq liir nañ ko fi c'est un rapport de qualité exhaustif et qui très bien ce qui en commission leneen li ma ci bëgg yokk mooy sama collègue madame le ministre Annette Seck dafa tukki mu ngi Malabo man maa waroon dem Malabo représenter président de la République ci réunion C10 c'est un groupe d'États boo xamante ni dañu leen identifier pour ñu porter le plaidoyer pour que l'Afrique obtienne un ou deux au Conseil de sécurité des Nations Unies réunion boobu fa la Annette Seck dem parce que man su ma fa demoon du ma mën a nekk tey fii pour budget bi beneen bi ci topp mooy am na yu bari yoo xamante ni wax nañ ko fii te mu nekk ay laaj du ñu mun nag tontu ci laaj yépp dinañu jéem a tontu ci li ci ëpp waaye dama bëgg a rassurer rek ne pour laaj yu bari on a prix bonne not et on prendra des dispositions pour jël mesures yi nga xamante ni moom la ñu war a jël am na tamit lu am solo loo xamante ni député yu jël parole leeral nañ ko laaj nañ ko waaye ñoom leeral nañ ko dañuy ñëw rek yokk ci liñ ci yokk ginnaaw loolu nag monsieur le président je voulais juste dire que le ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur est chargé d'appliquer la politique diplomatique du, du, du, du, Sénégal. La politique diplomatique, quand on en parle, c'est au moins trois choses. La première, c'est une vision, une vision diplomatique, définie par son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Son action diplomatique, on y reviendra tout à l'heure, est couronnée de succès éclatants, évoqués au niveau aujourd'hui de toutes les instances qui s'occupent de gouvernance internationale, qu'il s'agisse des Nations Unies, qu'il s'agisse des organisations africaines. Mais quand on aussi la diplomatie, c'est aussi des structures institutionnelles. C'est 51 ambassades établies à l'étranger, c'est trois missions permanentes c'est aussi 17 consulats. C'est aussi un millier de personnes qui s'activent et travaillent au quotidien pour le rayonnement de notre diplomatie. Le tiers est au Sénégal, les deux tiers sont déployés à l'étranger. Tout à l'heure, ça a été très bien dit, notre politique diplomatique est couronnée de succès. Et soit on le doit à notre histoire, à notre tradition. Le Sénégal, et le député, l'honorable Barregué le disait tout à l'heure, a été un pays qui s'illustre par le rayonnement de sa diplomatie depuis son indépendance. Mais le président Macky Sall y a apporté une touche particulière. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2012, il a privilégié, cela a été dit tout à l'heure, la diplomatie du bon voisinage. avec notamment les pays frontaliers et les pays de la sous-région. Le raffermissement des liens de bon voisinage avec les pays frontaliers. En Gambie, on a vu ce qui s'est passé avec l'intervention de la CDAO, avec le Sénégal comme pays leader qui a pu encadrer la transition gambienne. ba jàmm moo am foofu ci dëkk bi aujourd'hui Gambie. Quand on parle de diplomatie de bon voisinage, de bon voisinage, c'est l'initiative historique du, du, du président Macky d'établir des ponts avec les pays voisins. Un pont sur la Gambie aujourd'hui et qui fait oublier tous les, toutes les affres, les difficultés pour traverser la Gambie et se rendre notamment en Casamance. Mais c'est aussi le lancement du pont de Rosso aujourd'hui. Mais c'est aussi être parvenu à trouver un accord avec la Mauritanie pour une exploitation concertée du gaz et du pétrole que nous partageons. dans le cadre de GTA. La diplomatie de bon voisinage, c'est aussi le réchauffement de nos relations avec des pays comme la Guinée-Bissau. On aurait pu multiplier les exemples à loisir, mais le président a opté pour une bonne diplomatie de voisinage. Et il y a un renforcement aujourd'hui de la diplomatie des ambassades qui sont autour du Sénégal. avec d'ailleurs la nomination d'ambassadeurs chevronnés, expérimentés au niveau des pays frontaliers. Au niveau continental, on peut aussi multiplier les exemples de réussite de la diplomatie sénégalaise. On pourrait en citer peut-être deux ou trois. D'abord, la présidence brillante du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat. Le président Macky Sall a été désigné de 2013 à 2020 trois mandats consécutifs qui lui a permis au plan continental de porter la voix de l'Afrique et de transformer le NEPAD en agence de développement de l'Union africaine, qui est la première genre à coordonner les efforts de développement de 55 pays africains. La présidence de africaine, tout le monde la connaît, on n'a pas besoin de La brillante présidence de l'Union africaine a permis au président Macky Sall de faire obtenir à l'Afrique une place au G20. Ce n'est pas rien. Participer au G20, c'est avoir droit à une grande plateforme qui réunit les pays, les 20 plus grandes économies du monde. Et cela aussi a ouvert la voie à l'obtention par l'Afrique d'un troisième siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. On aurait pu encore citer beaucoup d'exemples. Mais ceux qui disent que l'Union africaine est en crise depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, je voulais juste le rappeler, les efforts incommensurables qu'il a initiés pour l'aboutissement de la signature de la ZLECAF, la zone de libre-échange du continent africain, qui fait aujourd'hui de toute l'Afrique une zone de libre-échange. On aurait pu multiplier encore les exemples. Au niveau mondial, Les exemples sont nombreux. Je vais juste citer la présence brillante du Sénégal aux Nations Unies, avec trois élections, notamment au Conseil de sécurité. L'organisation du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar, qui a permis d'inscrire aujourd'hui sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies la thématique eau et sécurité. Aujourd'hui, et je vais terminer par là, pour ce qui concerne l'action diplomatique du président Macky Sall. Les efforts qu'il a déployés au plan international, au plan diplomatique, lui ont valu, avant la fin de son mandat, d'être nommé envoyé spécial du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial pour les la planète. Mandat lui est ainsi donné à la fin de l'exercice de pouvoir, de pouvoir porter la cause pour un monde plus juste, un monde plus équitable au niveau de toutes les instances de gouvernance internationale. On aurait pu allonger encore la liste, mais je vais juste terminer par un aspect qui me paraît important parce que nous sommes un pays musulman. Le président a été récemment en Arabie saoudite célébré et félicité à travers un prix décerné par la Ligue islamique mondiale qui regroupe 1200 oulémas et mouftis du monde qui lui ont décerné un prix pour son action en faveur de la promotion de l'islam dans le monde. Je pense que pour un musulman, c'est une grande distinction. Je voulais maintenant, Monsieur le Président, essayer de répondre dans le temps qui reste à quelques questions spécifiques qui ont été posées. am na laaj yu am solo yu laaj conflit israélo-palestinien Sénégal loolu sax député yu bari yu fi jël parole wax nañ ko ba mu leer nañ position bi ñu am ci conflit israélo-palestinien position bu leer la position bu am courage position d'engagement auprès du peuple palestinien personne ne peut nous faire la leçon sur ce plan-là depuis 1975 c'est le Sénégal 1975 ñu bari boobu sax peut-être ñu du ñu le Sénégal qui préside le comité onusien pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975 récemment il y a un rapport qui a été produit sur la question c'est le Sénégal qui a présenté ce rapport depuis 1975 le Sénégal promeut solution des deux États en considérant que a droit à l'existence, mais la Palestine aussi a droit à un État. Et qu'il faut deux États qui cohabitent à l'intérieur de frontières internationalement reconnues. Récemment, à l'Assemblée générale des Nations unies, le Sénégal a été parmi ceux qui ont parrainé la résolution qui a condamné les violences de l'État israélien dans la bande de Gaza. Le Sénégal a pris des initiatives pour qu'il y ait un fonds au profit de Gaza. Nombreuses initiatives sont prises aujourd'hui par l'État du Sénégal pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient, pour la cessation des hostilités. On ne peut pas donner d'exemple, on ne peut pas, pardon, excusez-moi, donner des leçons sur ce plan au Sénégal. am na laaj aussi yu ñu laaj yu am solo mu aju ci affaire rapatriement dépouilles yi mooy sénégalais yi nga xamante ni dañuy nekk à l'étranger yàlla jël fa seen bakkan ñu war leen rapatrier budget bi nga xamante ni moom lañu def parce que dafa am budget boo xamante ni moom la budget bi dinañ ci góor góorlu chaque fois pour rapatrier ay corps yu bari waaye gis nañu ne budget bi du doy. loolu moo tax fi mu nekk nii ñu ngi xalaat benn solution bu am solo solution yi bokk na ci ñu ne dañuy jël léegi benn assurance assurance boo xam ne suñ ko defee du état bi moo koy jël léegi suñuy rapatrier bi ci yàgg ñu ne xaalis bi jeex na déedéet dañuy jël xaalis bi dugal ko ci biir assurance pour jàppale leen solution yi bokk na ci tamit ñu waxtaan ak réew yi nga xamante ni am na ay association yu organisé pour jël loolu en charge donc loolu incha allah dinañ ci indi euh, saafara euh, pour problème boobu am na laaj bu laaj aussi ci consulat yi foofu tamit je crois que wax ji war na leer fi mu nekk nii amul consulat boo xamante ni tëj na amul ñiy wax loolu dañu xamul li xew bi mujjee woon consulat New York la le 15 novembre ubbi na dëgg la nag biñ ko tojee yàq ko am na consulat yoo xamante ni tëjoon nañ leen pour defaraat leen waaye du pour leneen tey li ñu war a jàpp mooy consulat yooyu yépp ubbiwaat na donc amul consulat boo xamante ni tëj nañ ko fu nekk nii ubbi nañu consulat yi. am na tamit ñu wax ne Espagne soo demee ñu bari Barcelone la dëkk moo tax Sénégal dina ubbi benn consulat bu nekk Barcelone janvier 2024 dina ñu nommé consul bi consulat bi dina commencer fonctionner am na nag lu bari loo xamante ni wax nañ ko ci immigration ci migration irrégulière dama bëgg a wax rek ne migration régulière irrégulière baal leen ma loolu du lu bees Sénégal yàgg na am wax nañ ko sénégalais yi dañoo bëgg tukki sénégalais yi ay tukkikat lañu Barça Barsaq biñ koy créé boobu Macky Sall nekkuloon président de la République Barça Barsaq Barça Barsaq donc loolu yàgg na Sénégal dafa nekk nag loo xam ne buñ ko politiser. mooy di ko politiquer loolu baaxul ku mu neex na nga politiquer ko waaye loolu baaxul ci réew lu mel ni su amee da koy xool lan moo ko suuxat soo xoolee ba comprendre lan moo ko suuxat ñu xool nan lañ koy saafara boole ci du Sénégal rek du Sénégal rek suñu dëkk nag pays ne départ la ça veut nga gis ñu bari dañ fiy demandé mais soo jëlee gaal gi ci biir dina am ñu dëkk Sénégal waaye dina am ñu dëkk am yeneen réew donc loolu du affaire Sénégal rek loolu nag ñu ngi ciy def taxaw bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci état mooy saa yu ñu jaaxlee xale yooyu ñu jàpp leen Mauritanie wala Maroc ñu jàpp leen immédiatement après dañuy organiser seen rapatriement ministre de finance mi ngi nii dañ koy solliciter tout le temps pour dem Maroc Mauritanie Dakhla moo tax consul bi nekk foofu sax jàmbaar la ndax day dem di seeti xale yi di topp ci dem ci hôpital leen seeti état bi nag mi ngi ciy def lépp li mu mën ba nga xamante ni ku bëgg a ñibbisi nañ la jàppale nga ñibbisi du 1er janvier loolu damay joxe rek exemple du 1er janvier par exemple au 31 octobre 4000 non 2000 pardon 2279 migrants ont échoué sur les côtes marocaines, notamment à Dakhla. Notre consulat a pris toutes les dispositions pour assister nos compatriotes jusqu'à leur retour au pays, qui s'effectue en collaboration avec les autorités marocaines et mauritaniennes par voie terrestre. Des aides sont attribuées aux compatriotes en situation de détresse et le rapatriement des candidats à l'immigration irrégulière, Cabo Verde, Dakhla, Maroc, ñëpp ñu ngi leen di indiwaat fii cette année bi ku dénombré nañu cinq mille cinquante et un migrants yoo xamante ni ñëw nañu donc loolu nekk na loo xamante ni état bi am na ci taxawaay te ñu ngi ciy def lépp loo xamante ni moom lañu ci war a def financement am na lu ñu wax waaye député Abdou Mbow wax na ci lu am solo loo xamante ne amuloon léegi mu am nañu wax alhamdulilah ba pare nag ne amuloon am ñu ni baaxul loolu je crois que bokkul aussi ci objectivité ak honnêteté donc financement yi phase dafa am généralement ñaari levier yoo xamante ni moom lay utiliser benn bi mooy FAES dafay financer ay projets yoo xamante ni ay sénégalais de la diaspora ay ay sénégalais jaspora yu bëgg a investir liggéey fii Sénégal FAES daf leen di jàppale boobu mooy premier levier bi beneen bi mooy FAES day financer ay jigéen yoo xamante ni ñoom ñu ngi nekk à l'extérieur bëgg liggéey foofu plaidoyer bi nga xamante ne nag def nañ ko pour ñu yokk budget FAES maa ngi leen ci sant leen gërëm parce que ñun loolu ñu bëgg waaye nag yokk financement yépp mu ngi dépendre aussi ci suñuy capacité financière mi ngi dépendre aussi ci li nga xamante ni moom lañu am ci koom li ñu mën jàpp daal mooy ren ji FAISE maa ngi koy wax sous le contrôle du ministre des finances am nañu financement cinq cent millions loolu nag dañ ko def dans la transparence sélectionner cent projet projet bu nekk dina am cinq millions de financement muy cinq cent millions noonu lañ ko rétablir carte diplomatique Sénégal bi wax naa ko sànq cinquante une ambassades trois missions permanentes dix sept postes consulaires loolu moom la ñu am am na nag ñu wax pour ñu def élargissement carte diplomatique bi carte diplomatique tamit soo koy élargir il faut aussi nga tënk ci ses ressources budgétaires loolu moo tax soo leen ko seetloo fi mu nekk nii même Amérique latine bi ñu wax ne amuñu fa ay ambassade ci yenn dëkk yi semaine passée ambassade bi nga xam ne mi ngi nekk Brésil nommé wat nañ ko ambassadeur ci yeneen réew pour Sénégal mun a am foofu représentation parce que loo bëgg aussi extendre loo bëgg yokk sa carte diplomatique il faut aussi nga tenir compte ci say ressources pour avoir une diplomatie efficace sinon di nga tas say ressource te doo am résultat bi nga xamante ni moom nga bëgg. am na beneen laaj aussi boo xam ne laaj nañ ko ci sénégalais yi nga xamante ni dañ leen di poursuivre à l'étranger euh, kaaw soxna soo suñu doon wax Mbayang Diop. te mu dëkk ci commune l'honorable député dégg nañu baax li mu ci wax foofu dafa fekk ne même loolu nga wax ne prix du sang la Sénégal def na ci ay jéego yu bari ñu ngi ciy waxtaan ak royaume d'Arabie saoudite benn contrainte rek moo ci am mooy loolu pour ñu mun ko doxal pour mu mën réussir il faut doom yi ñi nga xam ne moo leen jur joxe seen accord te doom yi 2032 la ñuy jël la ñuy jël seen majorité 2032 su suñu demee nag ba nekk majeur ñoom nag suñu waxee ne d'accord nañu seen yaay faat nañ ko waaye ñoom ba mun nañu baal ñu fay prix boobu fay leen ko ñoom ñu mun ko def waaye tant que ñoom amaguñu majorité bi dina dina xaw jafe. situation Moyen-Orient bi je pense que tontu nañ ci. am na nag laaj bu am solo bu ñu laaj ci pèlerinage à la Mecque pèlerinage bi jafe-jafe yi ci am yépp diagnostiqué nañ ko délégué au pèlerinage docteur Sarr dem na ca Màkka def fa mission bu am solo diagnostiqué ko identifier problème yépp ba nga xamante ni ren ji yooyu yépp bëgg nañ ci indi ay saafara waaye dafa fekk ne Arabie Saoudite ci boppam dañu changer ren pèlerinage bi ni muy doxale moo tax ñuy adapté wu bi yoon affaire yi day teel a commencé ba pare day gaaw parce que nag ku tardé soo deful laa dañ lay dégradé ndax am na ñu ver am na nañu jaune am na ñu rouge loo gën a yéex nag di am not bu bon te note bon bi soo ko amee say pèlerin nar nañu sonn parce que même place yi ren jii niñ koy joxee ci loolu la dépendre donc loolu moo tax ren pèlerinage bi dinañ ko def ci ay anam yu gën a rafet waaye itam yu gën a teel yu gën a teel déjà préinscription yi à partir du mois de décembre lay commencé préinscription à partir du mois de décembre quota bi changé wul quota bi toujours douze mille huit cent soixante pèlerins la DGP am mille huit cent soixante onze mille yi voyagistes privés yi ñoo koy jël donc foofu amul changement décembre préinscription bi commencé donc bii yoon moom kuy. bëgg a pel ku bëgg a dem aji nga teel a jóg démarrage des inscriptions mi janvier 2024 fermeture du bureau des inscriptions mi février 24 fin de la délivrance des visas le 29 avril 24 début des départs le 29 mai 2024 début des retours vers le 20 juin 2024 bi yoon nag dañu bëgg président de la république dafa ne pèlerins yi pour ba ñu sonn nañ def ba nga xamante ne aj bi du yàgg ñu def ko entre quatorze jours ak dix-huit jours mu bañ a yàgg transport bi li ñu jàpp gum li ñu jàpp gum mooy cinquante pour cent yi Air Sénégal moo koy assuré parce que aussi il faut ñu soutenir suñu compagnie nationale yeneen cinquante pour cent yi Flynas te mu nekk benn compagnie Arabie Saoudite moom moo ko war a def donc. Euh, loolu commencé nañ ci concertation yi ministère des affaires étrangères ak ministère des transports aériens waxtaan nañu pour xool transport bi dañ ko mën a defee ci anam yu gën a rafet waaye semaine prochaine dinañu rencontrer ministre des affaires étrangères délégué général au pèlerinage voyagistes privés yépp ñu waxtaan ba nga xamante ni ñu déggoo ci pèlerinage bi nuñ koy doxalee te du am problème président am na nag ay laaj aussi yoo xamante ni laaj nañ ko waaye yaakaar naa ne li ci ëpp solo comme tontu naa ci dama bëggoon suñ ma ko mayee ma bàyyi sama naataango sama collègue ministre de finance et du budget mu ñëw ndaxte ñëwam tamit am na solo ndax am na yu bari yoo xamante ni moom moo ko mëna leeral may sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah